toog ki nga xamante ni mooy Mamadou Sow Diagne di papay xale yi euh, ñu ngi lay nuyu bàyyi la nga présenté. waaw waaw man maay euh, euh, le mari de la femme décédée et le père aussi euh, trois enfants dont les deux sont encore euh, en traitement et l'un est décédé hier quoi avant-hier plutôt. depuis kañ la amoon ban jour. vendredi. ban heure à treize heures. waaw l'heure la prière parce que man dama demoon julli ji bi ma ñëwee lan moo wax ma ko quoi. gaz bi moom moo explo hmm, waaw waaw c'est un gaz défectueux qui qui a explosé parce que le le bouchon de sécurité a sauté et a poussé le le bec de, euh, à gaz euh, comme ça c'est comme ça que les flammes ont commencé à à se disperser quoi. mais naka nga dundee sa njaboot ñett si ñoom génn àddina parce que ñi wax. sànq du ñett ñoo génn àddina de non ñaar sama benn doom moo génn àddina ak euh, yaayam waaw mais c'est pas c'est jusqu'à présent il y a eu trois trois décès c'est mon épouse et son fils donc ak euh, doomu frère am qui en vacances chez elle waaw qui était en vacances ici quoi. voilà, et qui devait rentrer même, je crois, le dimanche ou le samedi prochain. Samedi prochain. Alors, voilà, quand ils le, le parce que d'habitude, le vendredi, quand il fait chaud, ils sont sous cet arbre-là. Alors, quand ils ont, entendu le, le, bruit de la détonation, ils se sont précipités à l'intérieur. ñoom ñëpp nag ñoo dan dan dan duggoon rek pour sauver seen donc c'est comme ça qu'ils ont eu les brûlures quoi voilà jamono bi am na ñu nekk hôpital. waaw am na ñu nekk hôpital ils étaient onze parce que c'est six en bas et euh, euh, cinq au au premier étage waaw c'est les les onze personnes qui ont été brûlées voilà ñu ne ñu nekk ci kaw nag ils étaient brûlés parce que ñoom aussi quand ils ont entendu le bruit ils ont cherché à à savoir de quoi il s'agit quoi alors bi ñu wàccee la leen euh, truc la leen laal quoi. Voilà. Parce que Flamy, ça a été un peu euh, augmenté par euh, l'électricité qui était en train de brûler. Quoi. problème. Merci. Ah, c'était mon épouse, c'était mes enfants, et mon, mon, mon euh, un peu le, le cousin de mes enfants. Donc, euh, c'est la même famille, quoi. Voilà. c'est ça lan la gën a marqué si seen dund. non non mbir mi eh, man man mun ma ko teg feneen fu ci mbir yàlla rek waaw yàlla rek moo moo moo mooy kii mooy mooy mooy mooy tax quoi fa fa lay jógee parce que ce n'est ce n'est l'œuvre de personne ah pour le moment waaw ah, parce que euh, s'il y a des responsabilités à chuter on verra ce qu'il y a lieu de faire après

Ils ont amené même les trucs de la de gaz qui était, à l'origine euh, de, ce drame-là. Alors, bon, avec le bec de gaz, bon, maintenant, le reste, c'est à suivre après sur le plan administratif. Le reste, on verra ce qu'il est allé de faire. Quoi. Voilà. waaw amul problème. ci sëñ Mamadou Diagne mi ñu yàgg a ànd ñu nekk xale ba léegi muy taalibe sëriñ bi boole ñu. Euh, mu doon xew-xew boo xamante ni bi amee koñ bi kenn desul dëkk bi kenn desul démb ñëpp morgue daa fees dell te dëgg ñu ngi sant mbokk yi sant dëkkandoo yi ci turu sëriñ bi nga xamante ni mooy sëñ Ablatou sëñ Chouaïbou bi euh, nga xam ne mooy kilifaam mooy sëriñam ñu toogal ko fi euh, mu sant loo ñu waa koñ bi ak dëkkandoo yi ak mbokk yi ak xarit yëpp ci taxawaay bu ñu ko bu ñu ko taxaw démb taxaw ko sëñ Modou Diagne mi ci njabootam gi euh, loolu daal mu doon kaddu talibé ak kaddu jëwriñ yi nga xamante ne suñ euh, sëñ bi joxoon ko ñu toogal ko fi. situation yu mel nii nag xaw na donte dogal suñu borom waaye xaw na métti lool lool euh, boo amoon dig loo koy digal ci ci mbir mi fi mu toll lan nga koy digal ñàkk sa soxna ñàkk sa doom ñàkk say jarbaat. waaw kii. kii day magum taalibe kii day jëwriñ kii xam na ni lu kii xam na ni kii am na yàqin yoo xamante ni toll na foo xamante ni mbir mi metti na ci yëg-yëgu xol waaye yàlla def na ci moom loo xamante ni mën na koo muñ euh, yàgg na foo xamante ni ci ak taalibe suñ borom dimbal na ko dimbal boppam loo xamante ni li muy metti metti metti saalitut li muy metti metti saalitut lu muy métti métti delloowaat na ko suñu borom mi nga xamante ni moom moo ko joxoon soxna si jox ko njaboot gi te muy lu naqaree muñ nag ndax soxna si euh, doomu adama daanu daanu dajul suuf waaye daanaka soxna sagar euh, moom dajoon na suuf dajoon na suuf ci ak mbaaxam ci ak yëgam ci ni mu taxawoo borom këram ni mu taxawoo ak njabootam ak ñun ñi nga ñoo ay mbokk taalibi borom këram fi mu fi mu fi mu ñu féete woon dëgg-dëgg métti na métti koo xamante ni. suñu borom dong dong dong moom doon def lii te kenn jëflante ak moom waaye alhamdulilahi la bi nga xam ne moom dafa jël li mu moom suñ boroom li moom la jël ñun nag mu mënuñu lu sant ko ci ak gërëm ko ci delluwaat suñu bopp ci yàlla alhamdulilah ci sëñ moomu lu jaaj mi ñu yàgg ànd ñu nekk xale ba léegi muy taalibe sëriñ bi boole ñu mu doon xew-xew boo xamante ni bi amee koñ bi kenn desul dëkk bi kenn desul démb ñëpp margo daa fees dell te dëgg ñun ñu ngi sant mbokk yi sant dëkkandoo yi ci turu sëriñ bi nga xamante ne mooy sëñ Ablatou sëñ Chouaïbou nga xam ne mooy kilifaam mooy sëriñam ñu toogal ko fi euh, mu sant loo ñu waa koñ bi ak dëkkandoo yi ak mbokk yi ak xarit yëpp ci taxawaay bi ñu ko bi ñu ko taxaw démb taxaw ko sëñ Maodo Diagne mi ci njabootam gi Euh, loolu daal mu doon kàddu talibé ak kàddu jëriñ yi nga xamante ni suñ euh, suñ bi euh, joxoon nañu ko ñu toogal ko fi. mais ci situation yi mel nii nag xaw na donte ndogal suñu borom waaye xaw na métti lool lool boo amoon dig loo koy digal ci ci mbir mi fi mu toll lan nga koy digal ku ñàkk sa soxna ñàkk sa doom ñàkk sa jarbaat. waaw kii kii kii day magum talibé kii day jëwriñ kii xam na ni lu kii xam na ni kii am na yàqin yoo xamante ni toll na foo xamante ni mbir mi metti na ci yëg-yëgu xol waaye yàlla def na ci moom loo xamante ni mën na koo muñ euh, yàgg na foo xamante ni ci ak talibé suñu borom dimbal na ko dimbal na loo xamante ni li muy metti metti metti li muy metti metti saalitut li muy metti metti delloowaat na ko suñu borom li nga xamante ni moom moo ko joxoon soxna si jox ko njaboot gi te muy lu naqaree muñ nag ndax soxna si euh, doomu adama daanu daanu dajul suuf waaye daanaka soxna sagar euh, moom dajoon na suuf dajoon na suuf ci ak mbaaxam ci ak yëgam ci ni mu taxawoo borom këram ni mu taxawoo ak njabootam ak ñun ñi nga xam ne ñooy borom këram fi fi mu fi mu féete woon dëgg dëgg métt na métt koo xamante ni suñu borom dong dong dong moo def lii te kenn jëflante moom waaye alhamdulilahi rabbil bi nga xam ne moom dafa jël li mu moom suñu borom li moom la jël ñun nag mu mënuñu lu sant ko ci ak gërëm ko ci delluwaat suñu bopp ci yàlla alhamdulilah